Penda fekk nañ la fii si conférence presse euh, frère euh, Demba Guissé ngeen am euh, une parfaite complicité yéen ñaar alors tey lan lañ mën a xaar si yow sa jëmm Penda jour bi nga xamante ne moom mooy nekk quatrième édition Demba Guissé bi. waaw maa ngi nuyu ñëpp ah di nuyu nga xam ne ñooy seetaan di nuyu ñuy commentaire di nuyu ñëpp daal tubarkàlla di wax ne. le set bu soobee yàlla ci kattanu yàlla ak mbaaxam dinañ fa fekk spectacle bu doy waar parti papa tukulóor yaay du dëgg donc ñu ngi woo ñëpp nag di woo kala bi yow mbii mee mbii maami te couleur yëpp xaal pulaar yëpp ñu ngi leen di woo di woo waal tamit suñu mbokk yaay yëpp képp koo xam ne tubarkalla macha allah olof nga ndar nga dëkk dëkk cawaan ñun surtout ma Yacine Gueye ñoo woote dañoo bëgg ñëpp ñëw incha allah. jour ba Penda mooy jouer première partie bi wala. waaw man nag maa ngi ci biir nag fi ne nii xamaguma fan laay génnee. duma ma xool fan laay fan laay jaaree damay xool ni mu gën a rafetee rek ma di ko def mën naa jouer première partie que mën naa jouer ci digg bi que mën naa jouer avant Demba di yéeg que mën naa yéegandoo ak Demba ça dépend li fi nekk daal bari na loo xam ne mënuñoo wax lépp parce que nag tubaarkàlla macha allah ku jëm ci xare doo bàkkoogum donc ñu ngi ñaan yàlla yàlla na ñëpp teel a ñëw ci kàttanu yàlla ak mbaaxam ñu def ko ci jàmm ak salaam. d'accord sànq yaa ngi wax ku la xam ne Penda dafay waxee côté salañ salañ alors ñu gis que ni saa yoo génnee rek li nga xamante ne moom mooy ay clip sénégalais yi dañ koy apprécier alors loolu noonu ndax looy xaar loo xaaroon la si bi ngay composé say titre wala. non man su ma koy composé xam nga xol mooy def xol rek mooy def parce que li ñuy wax ne euh, sénégalais dafa bëgg ku mu yërëm sénégalais dafa am yërmande xol mooy def man bu may si studio xol laay duggee su may fay musiciens yi xol laa leen di fayee su may ma lépp lu ma ci def rek xol laa ci àndal xol bu rafet laa ciy àndal en fait moo tax lu ma génnee mu neex nit yi donc nit ñi dañoo am xol rek tey xol lu rafet ndax clip boo ko bëggee da ngay da ngay fay lu cher. da ngay dem ci kër gu rafet nga loué ko nga sañce lu rafet dem ci téyé du baax ñu ñawal la ñaw bu rafet nga and ak ay nit ba paré ngay gëstu loolu kessé la loolu rek motax tax bugguma ndax sénégal bo fi juumee duñ la bal sénégalais bo tiktok nga jëm lan moy secret pend ba sa yu génné tub rek mo and ak buzz xamanténé dal da fay da fay ëpp sax mu a wax loolu waaw damay sant yalla rek loolu yalla mo koy def ci doom aadama gis nga nit so so so ba lo génné nit yi bëgg ko mba bo génné ci nit bëgg ko mba bo solé dara nit bëgg ko du yaw yalla la yalla moy def ci ay nit du deug donc yalla moy def lolu ak xol bu rafet man sama xol dara neeku ci meuna mer legi legi legi rajaxi fi ni 1 minute ma tambalé ko ay joy ndax dama koy reccu du deug donc xol bu rafet rek moy yobbu nit donc ñu rafetal xol yi xol kesse mo ñu ku fi ku fi bëgg dem nak nga arrêté xamoon lu téé xolal fi ndax yalla bu bu tracé nga effacer mu tracé wat nga effacer mu effacer la tracé li la yalla def d'habitude penda ak artiste dañuy faral di gis euh, que penda artiste bi wax na li lol ndax penda lol lu dund ak artiste la wala lol lu ko bindal rek lay nek ndax dañuy gis que ni souvent penda dañ lay titrer que ni euh, ay wax yo xamanteni ni dafa melni penda dafa am ñoy lancer ay pic ci bir artiste ndax dafa am ay problème yo am ak ñom amul ben artiste bo xamne rek am naa problème parce que man duma dem man foo ma gis ma dem rek téléphone lan ma wo ma dem du fépp lay dem du deug lancé wu ma ben pic ak artiste ak artiste yépp sama xarit lañ waye nak bëgguma ku yépp du dëgg parce que artistes yi mooy loolu danoo da ci am ñoo xam ne mooy loolu titre moom yéen yéen ay titre yéen journaliste yi di titre nit lu leen neexee te da ngeen di nit ñi dañu am famille man du man man ma bindalee dara barki alaaji alaaji mi ma yaakaar du ma naqari mais samay mbokk lay ak samay xarit parce que titre moo garaaw te yéen da ngeen di nit seetaan ko waaye nit bu gisee photo penn gisee rek internet war la gét mais yéen seen titre mooy tax nit daw dugg ci loolu léegi bu dajeeg sénégalais lambda bu comprendre wul ne kii kat lañ ko bindal lool la te xamuma yéen journaliste yi sax bëgg ngeen maa na bu woon conférence de presse te doo leen ma tëg gis na ma waxu la dëgg ndax du fépp laay dem fu ma woowul nag du ma fa dem fu ma woowul jox ma bat mbaa kii bracelet doo ma fa gis mat naa lool. d'accord bu ñu desee si kaw loolu gis nañ récemment sorti Fatou Laobé ak internautes yi ni ñu ko recevoir bi nga gisee Fatou Laobé génn penda ru penda dafay ruube loolu naka nga koo dundee. gisuma ko ña ko interviewé bi ñu génnee kër Fatou Laobé la ma woo donc loolu bala moo dugg ci internet man maa ko njëkk seetaan ndax dañ maa woo ne ma ndax doo tontu Fatou Laobé dañ doon benn émission ma ne ko lu may tontu Fatou Laobé lu ma gisul ñooñu envoyé ma lien bi bala moo dugg ci internet laa wax man maa ko jëkk seetaan bi ma ko seetaanee nag man mat naa mat ba tey ne du ma artiste buy tël-tël yi du dëgg parce que defe naa ne boo gëjee gis Fatou Laobé ay ati at mbaa ku dul law be ay ati at nga dégg ko sa am na leneen loo ko waroon a laaj du dëgg gëj ngaa gis Fatou Laobé wala gëj ngaa gis euh, Penda gise ñaata at gisoo ko wa du grand théâtre du Sorano du fen gisoo ko fenn gisoo ko fu muy joué gisoo ko fenn waaw boo dé boo ko dékkee sa micro amoo leneen loo ko war a laaj kon ku ruube xanaa journaliste ba demoon moo ruube Fatou di sama mag ma jël sama téléphone woo ko téléphone ne ko lii ak lii la ma zone waa info réew wax damay wax mu leer parce que man moom ku xam-xam ne taalibi Serigne Babacar laa ragaluma ku yàlla bind ma jël sama téléphone ma woo Fatou Lawbe ma wax ak moom waxi nit waxi mag ak rakk ndax mënumaa jur waaye moo ma mag ma woo ko ne ko Fatou de man lii ma waa info réew mi wax ak lii ak lii wax ma mu am ci nag lu ko naqari yàllaa bëgg dëgg barki Khalifa Ababacar Sy dama ko téléphone man ne ko sama mag bi ma info réew woowee wax ma ne ma tontul ma ne leen lan laay tontu ñu yónnee ma ko avant muy dugg ci internet bi ma jël sama téléphone man ko may leen ma ma woo Fatou Lawbe ba pare ma jël sama téléphone ma woo Fatou Lawbe muy sama mag ma ne ko en tant que mag ak rak dafa am lu ma info réew mi yónnee léegi nii ma liir ko am naa ci lu ma naqari ndax fooguma woon ni foofu ngay tontoo Fatou bi ma ko waxee mu expliqué ma journaliste ba la mu dégg moom tubarkal masala du ko nettale ci àddinaam dafa law bi kenn du ko waxal loo xam ne boo ko jaxasee nag au contraire ruube bi mooy loolu ma woo Fatou mu wax ak man man rakkam ma comprendre ko lii tax débat wu ma ci waxuma ci nit ñaa ngi koy tiktok ñi ngi koy mbalag ak di wax lu ne ñii naan ma tontu ko nii ma ne leen déedéet du duma ko tontu ndax sama mag la te damay bëggee Fatou Laobé barke El Hadj Malick Serigne Babacar Sy rek laa gëm woyu Fatou Laobé rek laay enjoy jooyu ma enjoyu ma leneen muy sama mag nag du ma ko tontu duma ko wax dara li ngeen di xaar doo leen ko dégg sama mag la du ma xuloog moom same tey internet yi ñu si bëri ñi ngi doon wax ka ni Penda jëlal la part di la jëlal part tey soo amoon message booy lancé ñi nga xamante dañ nekk si inter si internet bi di wax que Penda dafa war a tontu Fatou Laobé wala Fatou tamit di di classe Fatou Fatou Laobé tey ñooñu lan leen wax. non non non du classe du contre parce que xamuñu parce que mënu maa dem fépp na leen Fatou Laobé lii la ma wax mais li may wax rek mooy Fatou Laobé bi ma ko woowee dafa dafa naqarlu noonu. parce que journaliste ba nam ko ko laajee la xam nga journaliste yi des fois boo gëj a gis artiste xam koo namul boo boo ko a gis boo waaye yow koo gëj a gis gis de gisoo ko ci fenn gisoo ko fenn mu réer la fépp boo demee ba di ko tàllal micro war ngaa xool bu baax li nga ko war a laaj. a def erreur parce que journaliste bi dugg na si moom deux mu ne gëmul loolu Pendo li wax. day ruube mais su amoon disque d'or boppam la koy jox déggoo li ma la wax du sax disque d'or déggoo may la booy dem si ku mel ni Fatou Laobé nga gëj koo gis am na leen loo ko war a laaj lu dul penn gise nee na boo nammee artiste tey boo namoon beneen artiste boo xam ne ñaata at gisoo ko du Sorano du Grand Théâtre du soirée ba muy tëggee romboo ci mbedd gis ko waa kooku boo ko tàllalee micro am na leen loo ko war a laaj lu dul diw nee na koo nam doo ko di fan ngay joué ak li tax demoo Grand Théâtre doo ko wax yu bëree bëri yoo xam ne plein de questions ki demoon moom dafa dof moom journaliste boobu kooku moom wérul kooku dafa dof mom parce que man defena ne buma yoron micro bi ma dem ba keur artiste buma nam bo xamne ay atagi ni ken gisuko ci fenn du single du cassette du dara woyul fenn mo duma buma la timé dina am luma la laaj nak ñoy wax waye nan ko diw neena diw neena diw neena non non non man yoy keeruma Fatou dal sama mak la pour gatal Fatou sama mak la ay wayam lay bégee barke Alaaji malik ay video Fatou yu may yu may woyee woyu Fatou dong mo nek sama téléphone barke Khalifa Malik, man Ben bi waxane xam ne ma koo ku ma Amerika dafa dina ma woo di ma laaj sama noonu daf may daf yi li ñuy wax basta yéen yéen a ma bëgg a ruube yéen journaliste yi. alors message boo koy laaj du woon platine de. dafa ni ma xam nga lan la xam nga euh, journaliste yi dañuy ruube des fois ay nit parce que dafa ni ma boo yoroon raaya koo koy jox Feeling Dakar te loolu mi ngi amoon après Dôme de Paris pari la woon émission boobu ñu ne ma boo yoroon raaya koo koy jox may leen euh, bu ñu la joxoon tey raaya kan nga koy jox ma ne leen bu dee pour góor la man euh, ma jox ko Demba Guissé sama rakk bu dee jigéen la man ma jël ko ñu ne ma léegi yow génnee nañ la si génnee nañu Demba ma tànn ñaari artistes yoo xam ne sama ay nit la ñu joxal ma ami ci am sama ay la ñu ma tànn ñaar ñoo xam ne Maadaba man maa aw kasetam Maadaba man mii maa aw kasetam bi muy way nit kii loo taaru taaru rafet ji ko ko gën man maa ko awu du dëgg ma tànn ñaar ñoo xam ne d'habitude seen seen ay woy laay bëggee muy Fatou Lawbe ak Maadaba lii moo indi wax boobu parce que daf ma fi ma bëggoon dugal du ma fa dugg ndax waykat yu ndaw yëpp samay xarit lañ ñi nekk Sénégal yëpp su ma jëlee disque door bi jox ko kii kii dina mer fan si ñii dinañu mer ma jël disque d'or bi jox ko kenn ñii dinañu mer du woon disque d'or raaya la ma wax ma ne ko man maa koy jël wala ma jox ko Demba sama rak munu ma léegi génne nañ leen si génne nañu Demba ma bañ a dugg ci polémique bi am léegi Sénégal que ñi kii kii la àndal kii kii la àndal ndax waykat yëpp samay xarit lañu. du dëgg ma bañ a dugg foofu nag ma tànn ñaar ñaari nit barki Khalifa Ababacar si bu fekkee jéem xooloon naa ci dara yàlla bu ma teral samay wayjur dara jaralu ma ci ci ci àddina di ruube Fatou Laobé bi ma ko woy dama ne ko du ma ruubanteeg xale sax bay ruubanteeg yow sama mag ma ne ko sama mag nga munoo maa jur sama mag nga du donc prep sénégal ñu koy ñu koy ngandel nak ku nekk di ka tass ñi di ko jël samay mbokk amna ñu mëna xari ñama dang ko wara tontu waroo ko bayina na may leen duma ko tontu lam ma wax ci message bi jotna ko dama wo Fatou be direct niko sama mak nga journaliste li lii ma yone pour ma tontu la waye duma la tontu nak dama lay béggee suma xulo wé yow xulo kuma bëgg yaa may dégg mu am lu ko nakari mun ma barki cheikhul khadim Fatou law be moma wax lolu mun ma barki cheikhul khadim amna lu ma kon na comme waa léegi Fatou Laobé bu nekkee sama mag ba pare am lu ko naqari ma wax ak moom téléphone léegi man dinaa génn di giita ngaas ak Fatou Laobé et eh, du ma ko def dara jaralu ma ko ci àddina barke Alaaji Malick site internet yi te loolu xam nga kañ la woon doom de Paris la woon du woon sax lu récent dañ ma doon laaj ma bañoon a dugg ci polémique u jamono parce que dafa am na ni ci polémique gu jamono boo xam ne ñii dañ naan ci kii la far kii ne kii la far man ma bañ a far ci kenn ma seet ñaar ñi may bégee faatloo bi sama kër moom rek laay déglu parce que dafa ma neex ay woyam nag faatloo bi dafa mën a woy lool peut-être naka ko journaliste ba laajee moo metti sénégalais yi bëgg cee def polémique kii di xëcc kii di xëcc tontuwuma faatloo am naa leneen lu ma tal dama ni yéen xale yu ndaw yi ñuy jox ay micro ñuy wër ci kër yi artistes boo gëjee gis artiste am na plein de questions war a laaj man tey su ma xëyoon war a dem ci benn artiste bu ñu gëj gis déedéet dinaa tëdd sama kër biographie kooku laay dugg pour moo wax ne leen man dama doon liggéey ci télé kenn mënu maa nax tey bu ñu ñëwoon ne ma sa nawle nee na nangam dama naan ko may ma ma taal ndànk xool li ko wax ak contexte ba mu ko waxee ak li tax mu wax loolu ma doog laa tontu du waaye nag rajax-rajax nii duma ci tontu te yéen journalistes yi ñi ngeen di jox seen caméra yi ak seen kii de leen leen seet bu baax artiste boo ko nammee nga gëj koo gis xamoo foo koy déggee déggoo ko ci dara nga dem ba biir këram nga am boobu dem ba biir amoo dara loo ko laaj naan ko diw nee na waa xanaa loolu dof munul weesu xale bu jigéen boobu kooku wérul waay kooku dañ ko war a booleeg waa dig wérul waay waay déedéet waay man dinaa la gëj a gis man man nam ma la sa waay ma ñëw di wax ay waxi dof dama naan la carrément foo ne foo ne <laughs> faata loo nag bu leen ma tiitire leen nag lu rafet kaay leen ma wax leen Feeling Dakar lu rafet la. moom Bamba ko moom te réew mi Bamba yi kii ko moom yéen ñii wane wane ma it bàmbaa ko moom kon damaa bëgg boo leen tiitre Penda Guissé nee na Fatou Lawbe magam la barke Alaaji Malick réew mi bàmbaa ko <laughs> moom bamba mooy réew mi kii ko moom Feeling Dakar bàmbaa ko moom waaye wane ma bàmbaa ko moom Fatou Lawbe sama mag la woo naa ko wax na ma dégg naa génn leen ci yooyu loolu du ruube Fatou du ruube barke Alaaji Malick ruube ma la dama lay bégee